Kar Ngom mu nekk PDG di président directeur général du groupe Sedima ñu tudd ko ci ay mbirum suuf yoo xam ne daf ko sàkk woon fële ne la ca booru jilaax waaye waa Ndengaleer tamit jàpp ni ñoom ñoom moom euh, suuf si ba mbir yi indi coow bi mbir yi indee coow nag tax na yëngu-yëngu am ci moom ñu tudd ko ci ba askan wi yëpp a ngi naan euh, Pape Babacar ngoom tey lan moo xew ndax am na lu nu miinoon ci moom waaye tey ci liñ koy tudd nan la demee noonu ba tax na la dakaar waa 221 point com dikk ak yéen ci seen une bi ci plateau spécial goo xam ne ni ki démb suma naataango bi di Pape Moussa Sow noo ko fi defandoo waaye tamit Dakar waa wax lu am solo loo xam ne dafa jëm ci mbirum Euh, Pape Babacar Ngom ndax moom démb li ñëpp doon xaar ngir mu indi ci ay leeral la dakaar waa dikk ci mooy que ni nee na bu fekkee dama nar a bàyyi suuf soosee nga xamante nii dañ ma ko jox ma delloo ko waa jilaax ndax bu fekkee daf ko nar a bàyyi waa Ndengaleer ndax waa Ndengaleer nooy sàkku ni ñoom ñoom moom suuf si na leen ko delloo waaye Pape Babacar Ngom moom nee nan fas yéene wu fas yéeneegul dellu ginnaaw bu dellu ginnaaw dem xëy na état mooy tranché fi mu ne nii daal moom bu leen naree delloo suuf si mu delloo ko waa jël waa jilaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko maanaam euh, jox euh, suuf si waaye Pape Babacar Ngom euh, yemu ca dikkat naag ñun na ci mbirum politique goo xamante ni ñu bëri ko ciy tudd ndax local yaa ngi ñëw bi ñu ko ci laajee ba defee ne lu jëm ci diggante mook ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye moom nee na leen moom politiqueul ko politigul li def mom moy politique économique donte politique na dafay def politique bi nga xamanteni ni nii euh, dafay jëm ci benen fànn way pas politique ni ko nit ñi bari xaré nu jàll ak yéen ci benen xibar go xam le Dakar wa dik ni ci dem mom moy le président euh, de la République Macky Sall génn na quarantaine gi mu ne woon waaye mel na ni mën na noo wax alhamdulilah suñu président yàlla dogal na résultat mi danoo mujj négatif kon euh, mbas mi euh, dalu ko nu ànd ak yéen ak xëtu yéenekaay gii di Seneweb ba dikk ak ñun ci mbirum fond Covid 19 fond Covid 19 boobu nag des morts dont feu Golbert Diagne euh, servi maanaam loolee mooy une bi nga xamante ni Seneweb dikk na ci. ngeen mën a am lu ci gën a yaatu bu ngeen euh, duggee ci seen euh, site bi waaye le président de la république Macky Sall tamit defaat na beneen at mooy moom njiitum réew mi Macky Sall dépêche Aly Ngouille Ndiaye c'est Cheikh Khalifa Sall donc nag lan la Macky sàll sàkku ci Aly Ngouille Ndiaye ngir mu doxal ko ko kër. Khalifa Sall doon lo loo xeyé ne nañ ko waaye xëy na xaw na euh, bette ñu jall ak yeen ci sunu réaliser ben entretien ak ki ñuy wax Serigne Modou Bousso Dieng Serigne Modou Bousso Dieng mo nee Touba né derrière aucun insulteur que le khalife et la première dame aient été associés à des insultes me fait mal ma qui peut désormais mu une boo xamante ni euh, sunu naataangoo Dakaractu dikk nañ ci ci kàddu ga Serigne Modou Bousso Dieng nga xamante ni moom jàpp na ni daal gox gii di Touba maanaam dëkk gu sell ba dëkk suñu wasiila googu di xaadimu rasulullah radiallahu anhu nekkul ci ginnaaw benn saagakat nee na su ma déggee saaga yi nga xamante ni tudd nañ ci xalif bi tudd ci Maram Fay sàll dafay doon loo xam ne daf may eh, métti loolu mu wax ko waaye nag ñoom i tamit waa Dakar ak tu yemuñu ca dékk nañ ci réponse de Babacar Ngom au maire de Ndiaganiao il ne m'appartient pas lan moque ko appartenirul moom mooy situation gogou nonou gis-gisam la ci wax fofu la ca Dakar Actu yam la ca des nak ngeen man ko yeggale ci sen euh, site benen point bi me que ngeen mom moy mbirum licence de pêche licence de pêche yi CRSEC CRSEC euh, nee na les avis du CRODT e, doivent fonder la politique euh, d'attribution CRSEC moo groupe armateur yi nga défendre le pêche au Sénégal Nous allons ak Sénégal Sénégal li nu double version de l'article 60 de la Constitution du tripatouillage pour désarmer El l'euro. donc El Pistolero fi mu ne nii euh, dikkaat na ci unu Sénégal ngir mbir yi nga xamante ni jëm na ca saaga yi fi amoon bi double version mo am ci mbirum constitution bi ci article 60 euh, bi Moudi di deux versions yo xamné ne relevé nañ ko ci mbiru manam Moustapha Cissé Lo waaye tamit sunu natango Sénégal yi dikat nañ ci li xew démb muy Babacar Ngom ak qui veut l'entendre mom Babacar Ngom il est catégorique nee na je ne restituerai duma les delloo suuf si ndax loolu la ñëpp doon xaar ngir mu def ko nee na du ko def mooy li ma wax sànq te Dakar waa dikkoon ci bu ko nammee def daal mu delloo ko ñamu ko joxoon te bu fekkee àtte am na état rek moo mën a àtte waaye tamit dañuy dem ba tey ak maanaam enser clé Touba par une autoroute le bluff de Macky Sall maanaam euh, waa euh, Sénégal euh, dikk nañ ci mbirum maanaam péage googee nga xamante ne diggoon nañ ko waa Touba mu toll ci fukki kilomètre ak ñett waaye jàpp nañ ni fi mu ne ni daan mbir yi ay naxe mbaay la affaire Moustapha Cissé Lo fi ñuy jeexaleeg sunu naataango Sénégal yi mooy Ahmed Khalifa Niass daa naa indi euh, réaction donc Ahmed Khalifa Niass euh, réagit ci affaire Moustapha euh, Cissé nu jàll ak yéen sunu naataango Dakar matin waa Dakar matin tey danoo xëy ñun. ci sen une bi wax ba tey mbiru justice ndax niki demb démb annoncé woon nañ ko wa justice ñi ñuy wax justice moy syndicat travailleur de la justice ñun ñoom dañu décrété waat 48 heures ba tey ñoom nee nañ daal ubbeeku nañ ngir ay négociations le justice ouvre la porte à des négociations avec l'État et étale ses exigences fas yéene nañ waxtaan ak état ngir jéem a wut lii saafara situation bi waaye tamit nak ñu ngi and ak seen exigence affaire du transfert des gazelles kewel yooyu ye nga xamanteni mo lembe won euh, xibaari Dembi. kii di docteur Dieye wax na ci nee na l' du ministre de l' environnement est un de braconnage maanaam li nga xamante ni moom la ministre de l' environnement bi def ci mbiru transfertu Oryx yi jàpp nañ ni daal euh, braconnage la euh, du dëgg euh, du yoon waaye tamit. mbirum euh, babakar Ngom tamit euh, Dakar Matin dik na ci babakar Ngom c'est le village de Djilakh qui m'a attribué par sur délibération CTR moy li ma doon euh, wax sank donc mom dal waa Djilakh la japp ne ñoko jox suuf si tey tamit jusqu'à preuve du contraire mi ngi ci droit mi ngi ci légitimité mi ngi ci légalité dañi jéxalé ak mbirum xari ndax ku ne xam na ni Aïd el Kabir bi muy feetu xari yi tabaski bi soreetul cherté du mouton à dara djolof un mbote agneau à 100000 francs donc da fay melni dal

te mu di ay preuve ci ñenn ñi nga xamante ni tey jii ni ay gros bonnet lañ maanaam kilifa lañ ci réew mi li ñuy wane ci kaw ak li ñuy wane ci suuf xam nga euh, menacé na leen donc li mu xam ci drogue yi li mu xam ci góor jigéen yi ak li mu xam ci leneen loo xam ne it xëy xajul fii nu wax ko fi bu nu ko wattuwul daal li gën ci nit ñi daal mooy ñu négocier mel na ni nag euh, daal buntu xaw na ubbeeku ngir mbirum euh, audio yi daal ñu xool ni nu mën a def ba tax na sax dañ naan sax ñan ñoo ragal ngir Cissé Lo maanaam lu jëm ci mbirum audio yi bu nu ci jógee tamit ni ki démb ni ko ñëpp defee mbirum Babacar Ngom Sedima euh, leeral tamit dikk na ci ndax Babacar Ngom Sedima PDG a offert une grande parcelle à l'église Saint-Tambour maanaam tey waa leeral fii danoo dikk ci loo xam ne xëy na ñu bëri xamuñu ko ci Babacar Ngom mi ngi koy def waaye sénégalais yi xëy na ñoom dañuy jàpp li nga xamante ni moom mooy négatif ci maanaam dundu euh, nit ki fi may jeexalee nag mooy elle gruge son mari de 70 millions xam naa lii moom soxna Sacha laay sànni euh, maanaam mbaal boobu noonu ndax soxna si fi may tëjee ak sunu naataango leeral point net Pa Moussa dafa euh, jamono ju toll ju métti gi mu jël 70 millions. jëkkër ji mhm. eh, la mu ca def nag trois points de suspension la ab jigéen a def ma jeexalee mhm. tàggatu yaram loolu point d'interrogation la ab sa dinañu wax ndax ñoom jigéen yi dañuy bëgg ngir xaalis wala dañuy bëgg te eh, yàlla tax fi may jeexalee ak sport eh, sunu naataango may nuyuwaale coach Ousseynou gisuñu ko ci plateau bi waaye nag mi ngi wane la mu mën ca site ba manqué dédicacé waale ndax loolu le la mu di le sport bi mbirum racisme Pa Moussa sport à l'image de l'italien Manam euh, ni mom mbirum racisme ci football euh, chaque fois mom dafay faral di na Baldé am wu mu ci sport de ci mercato annoncé au Besiktas Papi Cissé demain ni na championnat go, allah Turquie waaye fi mu ne ni annoncé nañ ko ci beneen club muy Besiktas waaye fi mu ne ni moom weddi na maanaam ay rumeur la xam nga tamit dadi di loo xam ne tamit dafay lëmbee presse bi fi ñuy jeexale mooy meilleur joueur de la première ligue découvrez la réponse de Alan Shearer maanaam indi nañ Sadio Mané indi nañ euh, yeneen joueur waaye Alan Shearer am na ku mu tànn ki mu tànn du ma leen ko wax ku ko bëgg a xam na nga dem wiw sport euh, soxna Sacha foofu lay ndar keppee tënku revue web bi di jéggalu ci xaabaabal bi di leen jaajëfal ci teewlu bi te di leen ñaanal al juma mubaarak fas yéene nag bàyyil ak sama bopp ngir ñu wéyale ci li nga xamante ni moom mooy waxtaanu tey jii di vendredi 10 juillet.